mbokki jullit yi ni ñu leen ko waxe woon ñu fas yéene ànd ak yéen ci xissab yonent yàlla bu tedd bii di yonent yàlla suleymaan xam ngeen ne ñëw na ci alxuraan estuwaaru suleymaan ci saar yu fasantigoo ci alquran bokk na ci am na ci loo xam ne sóoratul namli indi na ko am na ci loo xam ne ñëw na ci sóoratul anbiya am na ci loo xam ne ñëw na ci sóoratu saba am na ci loo xam ne it ñëw na ci sóoratu saad kon loolu mooy xaaj bi nga xam ne mooy cosaanul xisab kii nga xam ne moo di yonent yàlla bi di yonent yàlla Suleymaan ñu fas yéene cee waxtaan ak yéen ngir ñu mën a settantal bu baax ak waaru itam ci njàngalem yàlla subhaanahu wa taala ci kii maanaam yi ak li nga xam ne defal na ko jaam bi te indil ñu ko ci saari alxuraan yi suleymaan alayhi salaam ataahu allahu alilma walxikma wa allamahu mantiqa tayri walxayawaanaati wa saxara lahu alriyaaxa waljën yonent yàlla suleymaan ci kàttan yàlla ak mbaaxam ak seet kam kooko soob mu def ca la ko soob yàlla jox na ko xam-xam bu réeree rëy moom suleymaan jox na ko xikma muy wax bu xereñe ak xel mu xereñe loolu bokk na ci xéewal yi ko yàlla jox waaye bokk na ci xéewal yi ko yàlla jox nag moo di xamal ko langaasu njanaaw yi mantiqa tayri mooy picc yi lañuy wax ca seenug sab yonent yàlla suleymaan xam na wax jooje dégg na ko ndundat yi muy mala yi yonent yàlla suleymaan yàlla xamal na ko seenu làkk waaye yemut ca loola mu tàggatal ko ngelaw li ba mu di ko war moo ki soldaaram jëm fu leen neex yemut ca loola yàlla tàggatal ko jinne yi danañu ko leeral ci biir xisa bi incha allahu kon sayidna suleymaan daal boroom xam-xam bu rëy la woon boroom xikma la woon ku yàlla mayoon mu xam langaasu njanaaw yi xam langaasu yi dox ci suuf muy ndundat yi waaye yàlla tàggatal ko ngelaw li tàggatal ko jinne yi buñ ne tàggatal ko mooy nu ko neex la koy jëfandikoo tàggatal ko jinne yi niki noonu la am na xisaam itam muy ab ne ab histoire ci digganteem ak hudhud mel na picc la mu ñuy tuddee hudhud bu dee ci wolof moom la ñuy wax mbusëre jubbu defe naa lañ koy wax musare jub wala musare jub lu mu ci doon mooy turu picc moomule mooy mi nga xam ne yàlla daa def picc moomu moo doon ingénieur Souleymane bu Souleymane masaa dem fu amul ndox picc mi lay woo mu gëstul ko ban béréb la ndox nekk bu ko defee mu daal di digal jinne yi ñu gas foofa teen ci saasi ndox mën a génn kon amoon na histoire ci diggante boobu ak digganteem ak malikatu bi nga xam ne moo nekkoon yaman nga xam ne ñoom dañu daan jaamu jant bi lañ defoon muy seen yàlla bàyyi fale yàlla Suleymaan yónnee ca moom sàkku ci moom mu gëm yàlla waaye ca mujj ga itam am na lu ca xew incha allahu danañu ci ñëw ca mujj xisa bi moo tax yàlla subhaanahu wa bu ngeen dégloo léegi ci alxuraan jooju ñu jàng yàlla ne wala qad aataynaa daawuda wa sulaymaana ilman wa qaala alhamdulillahi alladi faddalanaa ala kathiirin min cibaadihi almu'miniin wa warisa sulaymaanu daawuud wa qaala yaa ayuha annaas callimnaa mantiqa tayri wa uutiinaa min kulli shayin inna haada lahuwa alfadlu almubiin loolu alqur'aan la yàlla subhaanahu wa taala nee na man day maa jox yonent yàlla daawud ak suleymaan xam-xam boo xam ne bu yaato yaatu la bu mu joxul kenn waaye bi leen yàlla defalee xéewal googu nag muy xam ak xàmmee dañoo dejjël lépp nag njukkal li delloo ko ci yàlla daal di wax ne alhamdulillahi allazi faddalana ala kasirin min ibadihi almuminin noo ngi sant yàlla mi nga xam ne moo nu defal lu mu defalul kenn nag gënal ci jaam kon ñoom day bi yàlla defalee xéewal fa saasa dañu ko daal di sant te gis nga xéewal googu ni mu réyee du xéewaluk alal waaye xéewalu xam-xam la donte alal dana ñëw ci ginnaaw bi waaye ba leen yàlla ne wala xadd aatayna daawuda wa suleymaana ilman rek dañoo daal di wax ne wa qaala alhamdulillahi alladi faddalana ala kasirin min ibadihi almuminin bi leen yàlla joxe xéewalu xam-xam rek dañoo daal di sant yàlla ñoom ci xéewal gu rëy googu yàlla subhaanahu wa taala dellu wax ne wa warisa suleymaanu daawud xam ngeen ne daawud mooy bàyyi suleymaan wa qaala yaa ayuha nnaasu allimnaa mantiqa tayri wa utiinaa min kulli sheyin inna haada lahuwa alfadlu almubin ab yonent bu ab yonent waaye buur bu buur mooy ñoom ñaar ñépp yàlla defaloon la leen ak yonent muy nubuwa yàlla defal leen ak nguur muy mulk xam ne gu réeréy la woon moo tax nguur gi amoon ci daawud la yonent yàlla suleymaan donn ca nguur ga donn ca nubuwa ga moo tax mu ne kon yéen nit ñi na ngeen xam ne yàlla defal nañu xéewal yu rëy bi ci njëkk moo di ullim naa mantiqa tayri yàlla xamloo nañu waxi njanaaw yi yàlla jox nu lu baree baree bari ci ay ngëneelam moom yàlla subhaanahu wa te ngëneel yu bari yooyu dana feeñ ci xissa bi kooku moo di yonent yàlla suleymaan ak daawud moo tax yàlla ne wa warisa suleymaanu daawud ci lan la ko doon warisahu fi nubuwati wal mulk mi ko doon ci nubuwa gi nekkub yonent comme moom waaye nekk buur comme moom waaye nag la ñu jublu laysa al maqsuudu wirasatuhu fil maal ndax ab yonent du doon nu alal jubluwuñ ne da ko doon ci alal ndax ab yonent daw doon na alal mboolem alali yonent yi dañu koy def sarax jox ko woy ñàkk yi ak ñi nga xam ne ñoo ko aajowoo loolu moo tax sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad sallallahu alayhi wa di wax ne nahnu ma'shar al anbiya'i la nuuras nun yonent yi kenn du duñu donn maanaam duñu donn alal lañu bàyyi ci alal dañ koy delloo ci baytimaalil muslimin jox ko ñi nga xam ne ñoo ko aajowoo ñu lekk ko looloo tax kon suleymaan doon lan la doon ci moom muy yonente gi ak nguur gu réy googule ci njëlbeenug suleymaan rek la mucjisaatam daa di feeñ moo tax fi yàlla di waxe ne ya qaala yaa ayuha nnaasu allimnaa mantiqa tayri wa utiinaa min kulli cheyin inna haada la huwa alfadlu almubin yéen nit ñi yëg ne kat yàlla jox nanu xam-xam boo xam ne bokk na ca nu xam làngaasu njanaaw yi yàlla defal nu yeneen xewal yu bare baree bari te loolu lépp ngënee la ma ndax moom mooy borom lépp moom yàlla kon yàlla jox na suleymaan alayhi salaam mulkan aziman lam yutihi ahadan min qabli wa lam yutihi li ahadin min baadihi ila yowmi alqiyaama nguur gi yàlla jox suleymaan nguur gu rëy la goog musu jox kenn te du ko jox kenn ba mukk yàlla nguur gi mu joxoon suleymaan genn kepp la woon moom rek la ko joxoon moo tax yàlla jox ko nguur gu rëy googu nga xam ne mësu koo jox kenn kenn ba yowmal xiyaam waaye bi loolu amee itam nag yonent yàlla dafa ñaan yonent yàlla suleymaan dafa ñaan yàlla nangu ñaan ga lan la ko wax moom suleymaan daf na ko rabbi xfir lii wa hab lii mulkan laa yambaxi li ahadin min baadi yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal ma waaye nang ma may nguur goo xam ne nag yellut pour kenn kenn musta am nguur gu mel noonu wahab li mulkan laa yambagi li ahadin baax di maa ngi lay ñaan nga defal ma nguur goo xam ne bu ma fi jógee kenn dootu am lu tol noon na ci pouvoir wala ci doole mbaa ci mbooloo yàlla nangul ko ñaan googule kon bu ñu bëggee waxtaan ci li nga xam ne moom la yàlla defal yonent yàlla suleymaan tàggatal ko yu baree baree bari yoo xam ne mosu koo tàggatal kenn muy tàggatal ko jinni jinne yi li ñuy bari bari suleymaan daf leen daan liggéeyloo ni mu ko neexe moo tax alxuraan di wax ne wa shayaatiina kulla bannaa'in wa xawaas wa axarina muqarranina fi l asfaad jinne yi ak seytaane yi dañu daan tabaxal suleymaan dañu daan dugg ci biir géej di génne wurus weeg Euh, doj yu am njariñ yi valeur yi nekk ci biir géej seytaan yi jinne yi dañ daan dugg di ko génneel Suleymaan yenn jinne yi daf leen a not moo xam ñu doon bañ la wala ñu gëmut la waaye mu qarraniina fil asfaal dañu leen a tëj kaso jéng leen di leen mbugal mbugal yu méttee métti kon yonent yàlla Suleymaan amoon na kàttanu jàpp jinne tëj ko ràpp képp koo xam ne nangoo topp ndigal rem rek ñu tëj la di la mbugal mbugal yu métte métti yoo xam ne mbugal melut ni moom alxuraan andi na ko moo tax yàlla ne wa min al jinni man yaamalu bayna yadayhi bi idni rabbi wa man yaziq minhum an amrina nuziqhu min adaabi shair yàlla subhaanahu wa taala nee na am na ci jinne yoo xam ne dañuy liggéeyal yonent yàlla Suleymaan liggéey travaux forcés la leen doon defloo képp ku bañ nag ñu mbugal ko yàllaa koy mbugal mbugal goo xam ne kenn mësu koo gis kon yàlla moo jàppale woon yonent yàlla Suleymaan mooy seet ku ko neex mu dooleel ko def ca moom kàttan ga ko neex waaye def ca moom it mujisaat yoo xam ne te yonent yi ay nit lañu woon waaye yàllaay seet ka ko soob mu def ca doole kàttan ak xam-xam ak mujisaat yoo xam ne defu ko ci keneen moo tax yàlla ne yaamaluuna lahu maa yashaau min maxaariba wa tamaasila wa jifaanin kal jawaabi wa quduurin raasiyaat yonent yàlla suleymaan li ko yàlla mayoon ci jinne yi bari na lool dañu ko daan liggéeyal liggéey bu mette métte métte ñoo ko daan tabaxal maanaam béréb yi pale yi ñuy jaamoo yàlla booba te loola daganoon la ci seen charia ñoo ko daan tabaxal stati ñoo daan tabax ay ndab yoo xam ne ndab benn ndab bu ci nekk rek wax nañ ne junni nit mën nañ cee bokk lekk ndab yi jinne yi daan liggéeyal Suleymaan benn ndab bu ci nekk junni nit mën nañ caa bokk di nekk daa ko liggéeyal ay ay mbalka maanaam fu ñuy def ndox foo xamante ne bii noonu la daa ko liggéeyal ay cin yoo xam ne junni nit buñ ko ñoo koy jàppoo doog a mën a toxal cin li yi ñuy togge loolu moo tax kon yàlla defal ko lu rëy ak doole joo xam ne defalu woon kenn te képp koo xamante ni bii mooy nga Suleymaan ci lépp lu mu santaane rek yàlla mbugal la ci mbugal yooyu mbugal yu rëy rëy rëy wax nañ ne cin yooyu réyoon na réyaay boo xam ne lu mat junni nit a koy jàpp benn ndab bu ci nekk lu mat junni nit ñoo ci bokk sukk di lekk yonent yàlla Suleymaan yàlla tàggal tàggatal na ko ay mbir yu baree bari bokk na ci la ko yàlla tàggatal moo di ngelaw li moo tax alxuraan di wax ne fa saxarnaa lahu riixa tajri bi amrihi ruxaan xaysu asaab yàlla nee na man maa tàggatal suleymaan ngelaw li mu di ko war jëm fu ko neexe suleymaan ak xare bi nga xam ne moom la daan àndal yàlla da ko ko tàggataloon waxoon nañ ne yonent yàlla suleymaan amoon na genn basang goo xam ne ci bant lañ ko defare te mu rëyaay ba mu ne wax nu mu toll da daan digal xarem bi maanaam ñi nga xam ne ñooy soldaar yi ñu war ko ci jaww ji naaw di wéy ba fañ bëgg a àgg ñu àgg fa ci diir bu gàtt loolu yàlla defaloon na ko suleymaan te alxuraan la fa saxarnaa lahu riixa tajri bi amrihi ruxaan xaysu asaab yàllaa ko tàggatal ngelaw li bokk na ci xéewal yi nga xam ne yàlla defaloon na ko ko muy kiimaan yi yàlla defaloon na ko maanaam weñ gu ñuul ni ko baayam daan jëfandikoo noonu la ko daan jëfandikoo wa asalna na ayna al xetri lu mu ci bëgg defar defar ko ci lu nu mu bëgg weñ gi nooye ni weñ gi nooye na ak lu weñ rëy rëy rëy da koy jàpp mel ne ni ngay weñe morso bu tooy noonu la ko yombe woon moo tax ñu daan ci defar ay cin yu mag ay jëfandikukaay yu mag yoo xamante ne bii noonu lañ ko daan jëfandikoo bu ñu xoolee danañu gis ne itam yonent yàlla Suleymaan yàlla defaloon na ko benn arme muy xare mbooloo moo xam ne lu nekk a ngi ci biir xare Suleymaan li ko formé woon ay mbindeef a ngi ci muy ay doomi aadama ay jinne ngi ci ay njanaaw a ngi ci yooyu yépp ñu ngi ci biir xare bi te ñenn ñu ci nekk daf leen di placé wut fu mu leen féetale ci biir xare bi noonu nga xam ne noonu la ab général di organiser ab ab xareem maanaam mbooloo yi ay ay soldaaram noonee la amee woon ay nit ñoo xam ne ñooy taxaw fee jinne yi taxaw fee njanaaw yi taxaw fa le bu ñu xoolee danañu gis ne alxuraan su euh, wax yàlla la moo wax ne wa wahabna li daawuda suleymaana ni'mal abdu innahu awaab moo wax ne suleymaan daal yàllaa ko jaarale ci ngir tël sayidna daawud daawud la yàlla may suleymaan defal ko kiimaan lool ku ne xam na ne ci aada li ñu xam mooy nit ki bu baaxee du du teemu ñaan doom ju baax waaye yàlla defal ko ko jox ko ko muy kado wawa hab naa la yàlla wax mooy jox nañ ko may nañ ko kado boo xam ne moo di Suleymaan waaye ni'mal abdu innahu awwaab daa di koy tàgg fi saa daa di wax ne rek ku baax la ndax bu ko yàlla defaree njukka rek da ko daa di delloo yàlla bi nga xamante ne bi id urida alayhi bil ashiyi jiyaat yonent yàlla suleymaan dafa nekkoon ku bëgg ay fas da koo neexoon lool ndax xare bi nga xam ne moom la yor te fas booba jamono boobu lu mën a xare la lu mën a waajal la moo remplacé tey moo fi nekkoon balaa chars de combat yi ñëw ak avion guerre yeeg yeneen ak yeneen yu yëpp moo tax suleymaan wax ne fa qaala inni ahbabtu xubba alxayri an dikri rabbi xatta tawaarat bilxijaab loolu ab xisa la seydina suleymaan dafa bëggoon ay fas lool am bis ñu indil ko mbooloom ay fas lu ëpp daanaka junniy fas yoo xam ne yépp ay naari góor la moo tax alxuraan ne id urida alayhi bil ay naari góori fas ngir muy xool ni fas yi dàqee ak ni ñuy jaayante maanaam bu doon tey ñu ne kursu ba seetaani woon wax ne inni ahbabtu xubba alxayri alxayri jooju wax nañ ne ay fas lañ ci jublu bi mu bëggee ay fas noonu yàlla dogal ñu indil ko lu mat junniy fas fas yu rafet mu taxaw di leen xool ndeketi woo yàlla ni muy xoole kursu fas yeeg ni fas yi jaayoo tax na waxtu julli takkusaan jot te julliwu ko moom yonent yàlla Suleymaan waxtu takkusaan jot te julliwu takkusaan bi mu xoolee rek daal di tiit ne moom ndekete mi ngi ci fas yeeg xéewal yu rafet yi ko yàlla won ba sax fàtte naa julli waxtu takkusaan mu tiit jàpp ne loolu ak mooy yàlla la moo tax alxuraan ne rudduha alayya fa tafiqa masxan bi suuqi wal anaaq aaya boobu boroom xam-xam muy ulama u tafsir wax nañ ci wax yu bari ba léegi daanaka wax bu gën a lëng bu wér a naa wax ne amu ci mooy dañoo wax ne bi nga xamante ne bii waxtu tëkkusaan faat na ko dafa daal di ne jël jël leen fas yi ngeen ñu rey leen fa tafixa masxan bi suuqi wal anaaq ñenn ñi ne fas yooyu kat bi nga xamante ne loolu am na Suleymaan def ne nañ leen rey ginnaaw ñoo tax may fàtte jaamu yàlla ñoo tax may fàtte tëggsaan nañ rey fas yi ñenn ñi ne déedéet ndax waxul ne nañ leen rey waaye dafa wax ne fa tafixa masxan bi suuqi wal anaaq ñenn ñi ne kon léegi lañ ci jublu mooy ginnaaw fas yi dañoo dañoo sonn seen tànk yi tax pënd mu ne nañ leen faxasal seen tànk yi dindi poussière beeg ak tilim ji nga wala ñaq yi nga xam ne moo ci nekk kon net li yu baree bari bari la waaye wax nañ ne fas yooyu matoon na junniy fas kon loolu tax na nafas fas ya doon jaayoo teekoo julli takkusaan mu wëlbatiku bëgg a tuubal boroomam daal di amug rëcc lool ñan nañu ne kat daf ne nañu rey fas yi ndax booba ñoom fas ma des na koo rey jëfandikoo ci seenum ngir ci seenu yoon sariya boroom xam-xam yi ne déedéet ndax xoolal fas ni mu amee njariñ ak fas yu tol noonu yu tol noonu nga ne nañ leen rey benn yaa ngi yàq loo xam ne mënoon naa waajal xare bu rëy ñaareel ba itam gisuñu ci njariñ lu tol ne nga war leen a rey kon loolu la ñu dégg ñenn ñi dégg ci tontu loolu nga xam ne moo ne inni ahbabtu xubbal xayri an dikri rabbi xata tawaarat bil xijaab ba noppi ne fa tafixa masxan bi suuqi wala anaaq kon loola du ak rey dëgg-dëgg ndax loolu dëppawut ak lu xel nangu li xel nangu mooy naari góor yu toll nii ñu wan leen a waajal ngir xeex yi bu ëllëgee ñàkk gu mu ñàkk a julli takkusaan tax mu ne nañ leen rey kon ñenn ñi mënuñoo dégg loolu. waaye ba teewut nag ba tey ñenn yi dañoo wax ne loolu daal lañ ci jublu mooy def ne nañu rey fas yi gannaaw ñoo matee julli li nga xam ne moo di waxtu takkusaan. niki noonu la kon ci biir loolu jàpp nañ ne rey fas yooyu sànq alal la. te it du mbugal guñ leen war a mbugal ndax fas yi defuñu dara loolu kon li gën wér moo di rëyuñu leen ñoom fas yooyu leen yàlla subhaanahu wa taala ne wa laqad fatanna suleymaana wa alqayna summa anaab yonent yàlla suleymaan nag bi mu jógee ci loolu it ni yàlla di nattoo doom adama nattoo na ko ko muy ak tawat wéradi wéradi yaram wéradi yaram jàppoon ko ba mujj yàgg bu ñu ko toogalee ci seesub gàngunaay gi it dafay mel ne jëmm ju amatug la ndax tawat ju metti dafay mel ne jëmm ju ndax tawat ju metti kon Seydina Suleymaan tawat ja metti woon na bu ñu ko toogalee dañuy defe ne jëmm ju amatug la waaye mu tuub rek dellu ca boroomam subhaanahu wa taala qaala rabbi xfir lii wa hab lii mulkan laa yambaxi li ahadin min baadi innaka anta alwahaab yow yàlla mi nga xam ne yoway maye yàlla nag ma jéggal bu fekkee damaa def benn bàkkaar buy waral lii te nga may ma nguur goo xamante ne bii kenn du ko mas a am te kenn mësu ko am ba mukk yàlla ne fa saxarnaa lahu riixa tajri bi amri ruxaa an xaysu asaab wa shayaatiina kulla bannaa'in wa xawaas tàggatal ko ngelaw li tàggatal ko jinne yeeg seytaane yi ñii dañuy dugg ci biir géej di génne wurus yi ñii nekk ci bitti di liggéey ci kaw ñii nekk ci ngelaw li kon loolu bokk na ci li nga xam ne bokk na ci xisab Suleymaan ba tey boroom xam-xam yi wuute nañ ci fitna ji yàlla nattoo woon Suleymaan te waaye bokk na ci la gën a siiw moo di li ñuy wax ne Suleymaan alayhi salaam dafa waxoon ne day dogu naa ne danaa wër lu mat juróom-ñaar téeméeri jigéen ci genn guddi kenn ku ne ma ànd ak moom ci wàllu sëy su ko defee kenn ku ne da nga jur benn doom boo xam ne bu màggee di xeex ci yoonu yàlla waaye ba mu waxee loolu ndekete fàtte naa wax insha allah loolu naqisa la boo xam ne moom la ñuy tudd ne dafa bokk ci israiliyaat yi yonent yàlla suleymaan dafa ne dogu naa ne guddi gi danaa ci war juróom-ñaar fukki jigéen tëdd ak ñoom kenn ku nekk dana am doom ju góor joo xam ne mooy jihaadi ci yoonu yàlla yàlla dogal neewut insha allah ba mu waree juróom ñaar téeméeri jigéen ñooyu yëpp kenn amu ca doom ba mu des kenn képp moo ca am doom te kam am doom xaaj doom xaaju nit la maanaam matut lu tax la mu fàtte wax bismillah yàlla xamal na ko mbir mi ci mbi ci loxol yàlla la nekk waaye nag nekkul ci loxob ab yonent nekkul ci loxob keneen kon loola ba nga xamante ne def na loola mboolem juróom-ñaar téeméeri jigéen ñooñu kenn ca am bu am ca doom te doom ja matut genn wàllu nit la loolu lépp ci xekma yàlla bi nga xam ne mooy wane ne yëf yi nag nekkul ci loxoob kenn ci loxob yàlla la nekk moo tax ar-Razi ci fa al-Faxru Razi wax na ci tafsirab ne Suleymaan natt ñu ko nattu woon ñi ngi ko nattoo woon ci tawat ju mettee mett joo xam ne ab docteur lott na ci faj ko amul kenn ku ko mën a faj du junne du docteur du njanaaw du leneen loolu kon bokk na ci li ko yàlla nattoo woon ba mu tuub yàlla jéggal ko bàkkaar boobale loolu moo tax yàlla ne wa laqad fatanna suleymaana wa alqaynaa ala kursiyihi jasadan summa anaab bu ma toog daanaka yaramu kesee toog waaye ruu nekku fa ndax tawat ju metti waaye yàlla delloo si waatal ko wérgu yaram googee nga xam ne moo nekkoon ca moom yàlla delloo sil ko wérgu yaram googe alxuraan mi ngi ñuy tuddal ay taxawaay yu baree bari ci xisab suleymaan am na ci yoo xam ne da koy lëm noonu du ko àggale ndax xikma lay xikma ba mooy bu fekkoonte ne njariñul àggale ga am na solo kon mu àggale ko waaye bokk na ci xissa li nga xamante ne bii amoon na ci digganteem ak suleymaan ci jamono moom la alxuraan di wax ne wa daawuda wa suleymaana it yaxkumaani fi lxarsi it nafashat fiihi ganamu lqawmi wa kunna li xukmihim shahidin alxuraan buy nett li bëgg nit ñi xamee ci nit ñi waarooti loolu moo tax yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awxaynaa ilayk maa ngi lay nettali ci xissa yi alxuraan yi ndax yépp am njariñ nag waaye bii de ci raw te fekk boobu mooy xissa bi yonent yàlla eh, yusuf waaye fii yàlla ne wa daawuda wa suleymaan daawuda ak suleymaan yàlla dogal dañoo bokk nag di atte is yaxkumaani fi lxarsi is nafasat fiihi ganamu alqawmi wa kunna li xukmihim shahidin yàllaa ngi teewe yàllaa ngi xam lépp waaye fa fahamnaa suleymaana wa kullan aataynaa xukman wa ilman yàlla subhaanahu ci kàttanam bi nga xamante ne daawudaa ngi toog ni mu baaxoo def di àtte nit ñi ci seeni jafe-jafe seeni xew-xew am benn waay bu ñëw di kalaame si daa di wax ne ah boroom jur gii kat dafa ñëw ca samay tool ca waxtu guddi jur ga lekk sama mbay mi ma bayoon yépp mboolem cëg gi raisin ya ca nekkoon ak juram lekk na ko ñu laaj boroom jur gi ne ko ndax lii kiy wax dëgg la sa jura lekk mbayam mu ne waaw wax na dëgg lekk nañu cëg gi euh, raisin ya nga xam ne moo fa nekkoon yëpp ah daawooda daal di àtte xelam daal di jël benn àtte nekkoon yow borom tool bi nga xam ne yaa moomoon tool bi jur gi lekk sab tool nangul jur gi jëlal jur gi yëpp yóbbu sa kër waaye Suleymaan gisewul noonu suleymaan ñu ne ko waxal moom itam mu wax suleymaan ne ah man de li ma gis foofu moo di ci li ma yàlla jox ci xam-xam moo di nañu jur gi jox ko borom tool bi te ki nga xam ne moom la juróom yàq tool bi mu dem jiyaat tool bi bayaat ko ba mu meññ ba cëg resin ya mel na meloon tool bi mel nam melaatoon ñu jërug juróom delloo ko ki jël jur gi itam te moomoon tool bi na jariñoo ci jul gi na ciy lekk di naan ci soow mi di jaay ci kawar gi ba bopp toolam di mel nam melaatoon ñu delloo boroom jur gi ak julam atte boobu moo gën a maandu atte bi nga xam ne moom la nabiyullahi daawuda defoon bi nga xamante ne suleymaan wax na loolu ah daawuda yi daal di gis ne nag lii moo gën a yenu maanaam moo gën a xaj ci bopp moo tax daawuda de haada xukmun azimun yaa suleymaan alhamdulillahi allazi wahabaka al xikma yaa ngi yow lii nag mooy atte bi nga xam ne moo gën a maandu te moo gën a jub maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo la may xam-xam bu sew boobu nga xam ne jëfandikoo ko jëfandikoo nga ko kon loolu atte la boo xam ne alxuraan ko andi wa daawuda wa suleymaan daawuda ak suleymaan id yaxkumaani fi lxarsi bi nga xamante ne ñi ngi atte ca mbay ma itanafashat fiihi ganamul qawmi bi nga xamante ne jurug mbooloo ma dañoo lokki dem ci toolub jàmbur wa kunna li xukmihim saahidin te yàllaa ngi gis lépp fa fahamnaa suleymaana ne yàlla daal di rocc ci benn xikma dugal ko ci suleymaan xamal ko ne ko nii la ne yonent yàlla daawuda wax baax na sax waaye nii la yàlla bañ daawuda mer mu ne wa kullan aataynaa xukman wa ilman kenn ku nekk ci ñoom rek jox nañ la xikma yéen ñaar ñëpp daal defal naa leen gën gëneer far mu gën a gaaw moo tax yàlla ne wa xushira li suleymaana juluuduhu min al jinni wal ins wa tayri fa hum yuusaun yàlla yonent yàlla suleymaan ab xareem réyaay ba doy na waar moo tax alxuraan di ko tudd di wax ne bi nga xamante ne suleymaan dajale na xare bi ci digg àll bi wala pénc mi wala terrain bi fu mën di doon ci jinne yeeg nit ñi ak njanaaw yi fa hum yuusaun léegi mi ngi leen di séddale di leen def ne armée sangam nañ taxaw fii armée sàngam nañ nañ taxaw fii ba ñu defee noonu bay départ nag xata ida ataw ala waadi namli ba ñuy dox di dem ak seeni fas ak kërëb-kërëb jéeg nañuy dawee di dem xaalat namlatun yaa ayuha namlu udxulu masakinakum na yaxtimannakum suleymaan wa junuuduhu wa hum laa yashcuruun benn xorondoom dégg armeb suleymaan bi ni ñuy rëtatatee di ñëw xorondoom bi woo gaayam yépp moroomi xorondom yi ne leen yéen xorondom yi gaaw leen dugg ci seen pax yi bala leen a Suleymaan a jóge xarem bu réy boobu di leen rey gaaw leen delluwaat ci seeni pax ndax loolu riir di ñëw xareb Suleymaana te bu jaaree ci seen kaw ngeen dee daw leen ndekete Suleymaan dégg na waxi xorondom bi fa tabassama daaxikan min qawliha yonent yàlla Suleymaan daal di muuñ ci wax joojule daa wax ne wa qaala rabbi awsicni an ashkura nicmataka allati anamta alayya wa ala walidaya wa an acmala saalihan tardaahu wa adxilni bi rahmatika fi cibadika saalihin yonenti yàlla Suleymaan daa di muñ dégg lii xorondoom bi wax mu delluwaat sant yàlla ne ah, yàlla daal maa ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yaa ma may mii xel defal ma xéewal yu rey yii maa ngi ñaan di sant si xéewal yi bu baax a baax xéewal yi ma defal yépp te Suleymaan ku amoon maande la ci lépp luy dox ci kaw suuf wala lu man di doon loola moo tax bi ko yàlla déggalee làkku làkku su euh, euh, xorondoom yi tax na mboolem armeem boobe dëgguñu wenn xorondoom jaar ci seen kaw moo tax mu ne ko euh, xewal gi nga ma defal defal ko sama ñun maa ngi la ñaan nga defal ma may def lu baax fu ma toll di doon jëf joo gërëm wa adxil nii bi rahmatika fii ibadika saalihin li muy doon doon ab yonent gis nga xéewal yi ko yàlla jox waaye taxul mu naagu ci yërmande yàlla ba tey mi ngi ñaan yërmande yàlla ak yàlla boole ko ci gaa yu baax yi moo tax kon loolu yàlla defal ko ko moom Suleymaan alayhi salaam bi nga xamante ne reena ngir li nga xam ne moom la xorondoom yi wax loolu kon noona la def ba weesu leen ci ak ñeewanteem ak yërmandeem loolu moo tax jóggiwul ci ñoom benn xorondoom